jaajëfal leen bu baax a baax tey di lu seen ànd ak rajo Rewmi FM vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di farataal di teewlu seen émission bi di soy santé tey SOS santé am mbégte ak bànneex di dalal ki nga xamante ne moom moo di madame Balia Mara moom madame Balia Mara mu nekk chef de bureau chargé des groupe vulnérables foofu sa couverture maladie universelle madame Balia ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM waaye laata loolu ñuy rafetlu nangu bi nga nangu wuy su suñu invitation bi. Euh, merci euh, madame Fatou Ba maa ngi lay nuyu di la jaajëfal ci invitation bi nga ñu adressé. ñu sawar ci lool pour répondre à cette invitation euh, di nuyu les auditeurs de réew mi FM di nuyu aussi suma collègue yi nga xam ne ni ñu ngi ñuy déglu instant bi nekk ci agence de la couverture maladie universelle merci. ñu xuus rek euh, tàmbali li nga xamante ne moom moo di waxtaan wi tey jii couverture maladie universelle annoncé nañ ko en grande pompe euh, à chaque fois bu ñuy def bilan jëm ci wàllu wér gu yaram couverture maladie universelle. xel day daal di dellu si saa su nekk ñu taxaw foofu rek bëggoon xam lan mooy couverture maladie universelle. waaw merci dinañ dina sawar lool pour wax la wax waa sénégalais yi. ci mbiram couverture maladie universelle ndax nekk na un programme du chef de l'État euh, qui a été lancé en maanaam en 2015 la ñu mettre en place l' agence de la couverture maladie universelle euh, donc agence bi nag li ko taxoon jóg euh, ak couverture maladie universelle euh, te loolu defe naa ne ñoo ngi si bi léegi mooy permettre aux Sénégalais ñu accéder maanaam ñu jot ci paj mu am paj mu oyof te seen loxo du si du si du si maanaam loxo bi te paj mu oyof boo xam ne nii du cher euh, dina accessible te nit ki du ci am sénégalais bi du ci am benn jafe-jafe pour faju donc euh, bu ma ko mënee tënk ci wolof loolu mooy couverture maladie universelle maanaam malaanu kiiraay la boo xam ne ni dañ ko fee teg pour que sénégalais mën di ko jëfandikoo su fekkee ne tawat dugg na ci biir kër gi wala kenn ci famille bi feebar na wala un sénégalais boo sentir nga ne feebar nga nga mën a jot ci kiiraay boobu mën a faj faju ci sutura mhm. te te te du am ay jafe-jafe mhm. donc bu ma ko mënee tënk loolu mooy couverture maladie universelle ci benn aspect mhm. maanaam aspect assurantiel bi ci beneen aspect bi nag couverture maladie universelle nekk na lépp loo xam ne nii mu ngi ci xeetu gratuité yi maanaam les enfants de zéro à cinq ans le plan Sésame la césarienne la dialyse donc loolu mooy aspect médical bi donc bu ma koy tëgg couverture maladie universelle mooy ci ñaari aspect la muy aspect assurantiel ak aspect médical ci wàllu gratuité yi mm-hmm. Euh, foofu leer na ku wax couverture maladie universelle certainement xel dafay dem ci naka la ñuy def ba adhéré lépp lu jëm ci wàllum mutuelle euh, tey ji benn sénégalais lambda naka la mën a def ba gis euh, boppam ci li nga xamante ne moom mooy mutuelle de santé yi nga xamante ne moom lañ taxawal. waaw jiitu nga ma sax parce bu ma laa dina ma dina mën a neex parce que ça veut dire que ne ñun déjà nit ñi xam nañu. Euh, couverture maladie universelle fi koy jaarale mm-hmm. parce que quand ba ma waxee subitement mutuel de santé effectivement euh, dañoo seetlu bu ma remonté toujours parce que la répétition elle est pédagogique donc peut-être am na ñoo xam ne ni ñu ngi ñu doog a jël en cours bëgg xam lan mooy couverture ak fu mu jógee mm-hmm. donc boo koy xayma euh, dañoo natt ne gis ne 80 pour cent des sénégalais soo koy xool tey jii ñoom ñëpp ci feebaroon ci 80 pour cent yooyu ku ci feebar xëj na di nga ànd ak ay jafe-jafe pour jot ci paj mu am paj mu mucc ci ayib donc loolu boo buñ ko nattee xool ne 80 pour cent de sénégalais amuñu malaanu kiraay maanaam bu ñu feebaree mën nañoo ànd ak ay jafe pour jot ci paj moom et que 20 pour cent yooyu rek yi ci ci des xëj na mooy ñi nga xam ne nii ñu ngi liggéey ci ci ci ci privé bi wala ñi nga xam ne nii ñu ngi si euh, si si si fonctionnaire yi donc loolu mooy 20 pour cent ak assurance privée yi mais boo koy xool les de ces indaale tey jii mën a étude bi dafa wane ne amuñu malaanu kiiraay mm-hmm. loolu nag buñ ko bëggee def nag dañ ko jaarale eh, ci li nga xam ne ni mooy mutuelle de santé maanaam ci à travers les mutuelles de santé ci lañ jaarale couverture boobu pour que sénégalais yi mën a dem bindu ci mutuel de santé bi mën a am seen carnet ñoom ñëpp bindu ba bu ëllëgee nga mën boo feebaree di nga mën dem ci gox bi nga xam ne ni fala la mutuelle bi eh, signer convention nga mën faa faju loolu nag informatique moo xam poste de santé la moo xam centre de santé la moo xam hôpital la mm-hmm. donc pour te dire que ne mutuelle de santé yooyu actuellement képp ku bëgg jot ci CMU da ngay dem nga bindu ci mutuel xam naa dinaa ñëw tuuti si waxtaan bi si si adhésion yeeg cotisation yeeg yooyu mais loolu mooy mut loolu mooy couverture maladie universelle ci historique bi donc bi ñu xaymaa loolu ba natt ko ci le président de la république na jóg mettre en place ce qu'on appelle l'agence de la couverture maladie universelle benn institution boo xam ne nii dafa jóg pour mettre exécuter à travers son directeur général docteur Bocar Daf que je salue au passage bi nga xam ne ni actuellement moom mooy le directeur général bi nga xam ne ni il est en train de traduire euh, peut-être de, pas peut-être mais il est en train de traduire euh, les idées euh, les, les idées du président de la République par des actes concrets parce que mi mi ngi moo nekk ci ci le chef le chef de la navire était mm-hmm. liggéey actuellement ñu ngi ci liggéey bu am solo pour que sénégalais yi continuer xam lan mooy mutuelle de santé dugg si mutuelle de santé yi bindu mën a am kiiraay bu baax. Mm-hmm. donc depuis bañ ko créer son excellence le président de la république euh, bëri na jéego yu xam ne ni def nañ ko pour sénégalais yi mën a jot ci paj moomu mm-hmm. am na ay jéego yu ñu def euh, ngir sénégalais mën a jot ci paj moomu wax nga ko brossé nga ko un tout petit peu euh, ginnaaw bi ngay expliquer tey ji adhésion bi soxal mutuelle de santé yi comment ça se passe ak euh, ban ciblage de personnes la la la lay voilà adhésion yi ça concerne tous les sénégalais. Mm-hmm. et ça concerne cible yëpp. de de de de de y a pas des cibles spécifiques. Mm -hmm. pour bénéficier d'une couverture maladie universelle euh, boo koy xool euh, képp kuy sénégalais ngay dund nga yewoo ci territoire sénégalais. am nga droit nga dem bind ci bind mutuelle cotisé mën a bénéficier de de de de du paquet de de yi nga xam ne ni si mi mettre na ko en place. Mm. il suffit juste d' abord nga répertorier mutuelle de santé bi nekk sa gox ndaxte boo koy xayma comme comme ni ma la waxoon rek lu bëri liggéey bi yaatu na def nañ ci lu bëri soo koy xool xayma fii ci Sénégal eh, gox boo mënti dem. teg nañ fa mutuel de santé boo xam ne ni c'est fonctionnel maanaam tey Sénégal boo demoon ba Fongo Fongolemi nga dem ba Bandafassi nga dem ba ba Nina Ficha yooyu mooy dem pour te dire c'est dans le Kédougou les les communes yi nga xam ne ni maa ngi koy lim. Mhm. nga foo mënti dem ci Sénégal même les coins les plus reculés mhm. def nañ fa une mutuelle maanaam samp nañ fa une mutuelle de santé buy fonctionner boo xam ne gox goxaan ya ko wër mën nañ dem bindu ci mutuelle boo pour mën a am jariñoo couverture maladie universelle. Mhm. bindu bi nag yomb na ndaxte boo demee di nga def adhéré di nga adhéré lii wane ne man mi bokk naa ci mutuelle bi da ngay adhéré 1000 francs. 1000 francs ngay bokkee ci mutuelle bi léegi nag boo bokkee ci mutuelle bi da ngay cotiser 3500 maanaam juróom-benn juróom-ñaar téeméer. 3500 mhm. boobu yaa ngi koy cotiser at bu nekk maanaam tey jii nous sommes le 10 juin. le 10 juin si je su ma versé sama ju sama euh, sama 3500 dinaa ci faju atam lëm. atam lëmm laa wax de mhm. nga faju ci atam lëmm léegi bu at boobu jeexee ba nga faju ba pare nag dangaa war a renouveler waat donc chaque année da nga war a cinq 3500 léegi supposons yow nga nekk père de famille wala nga nekk mère de famille nga am euh, nga am 10 doom 10 doom yow da ngay dem nga adhérer mille francs yow nga dugal sa 10 doom yëpp nga cotiser leen ku nekk maanaam bopp bu nekk nga dugalal ko 3500 par an par an donc bopp bu nekk da nga koy dugalal cent par an donc ñu jox leen seen carnet ngeen am seen livret de famille maanaam famille bi tey jii am nañ protection am nañ kiiraay ndaxte ci biir livret bi ñun ñëpp ci famille bi membre famille bi yëpp ñu ngi ci biir livret bi. Mm-hmm. ku ci feebar ëllëg da ngay gàddu sa livret boobu nga daal di dem ca mutuel de santé ba mu jox la këyit bi wane ne yow mi prise en charge. xam nga tey ji euh, ñun fonctionnaire am na fonctionnaire par exemple bu ñu feebaree dañuy dem jël prise en charge même même même même même procédure la dangay dem ci mutuel ba mu jox la prise en charge wane ne diw sàngam kat doomam feebar na xaaral ma jox ko prise bi daal di nga daal di dem nag faju ji soo demee faju ji ni nga xam ne ni yombalal nañ la ko ci faj mi même ci wàllu ordonnance yi noonu lañ la ko yombalee mm-hmm. maanaam tey jii su doon ñaar fukki dërëm la nga cotiser euh, nga cotiser euh, su doon ñaar fukki dërëm la nga cotiser maanaam pas cotiser sax maanaam su doon ñaar fukki dërëm nga war a fay ah. fukk ak juróom benn yi mutuelle bi moo koy fay maanaam quatre-vingts pour cent yi yow yaa ngi fay vingt pour cent yi donc ci ci ñaar fukk vingt pour cent yi ngay fay maanaam ñeenti dërëm yi ngay fay mutuel bi fay quatre vingt pour cent bi loolu valable na ci consultation yi ba ci hospitalisation valable na ci médicaments yi donc ndax te xam bu njëkk mutuelle yi daawuñu ñu àttan yenn yenn yenn charge yi mais tey jii am na li ñuy wax des médicament yu spécifiques yoo xam ne ni euh, médicaments yu chair la da nga war a génn hôpital boo demee léegi bu doon ñaar fukk la da koy séddoog mutuelle bi mhm. mutuel bi mooy fay xaaj bi yow nga fay xaaj bi yaa ngi dégg bu baax li ma la wax donc loolu nekk na loo xam ne nii pour permettre nit ki bis bu feebar ñëwee ci moom te xamul num koy fekkee nga mën a taxaw sa mutuelle mën la jël en charge ndaxte tàmm naa di ko wax kat ndax euh, feebar moom du du fëgg buntu kenn ne la maa ngi ñëw. Mm-hmm. xam nga nit du xam kañ lay feebar donc mën nga toog bi si yàgg nga feebar euh, xëñ na poos bi dara nekku ci mais bu la fekkee nga bindu si mutuelle mutuelle bi ngay dem la nga daan cotiser moo lay couvrir mm-hmm. donc bu fekkee nga daan cotiser nekk à jour te tes cotisations maanaam cotiser nga yoreloo dara ci cotisation yi su boobaa mutuelle bi mooy taxaw nag daal di lay jox malaanu kiraay nga faju ci sutura jënd say garab ci sutura sa njaboot feebar faju te doo ci dépensé lu lu cher mm-hmm. loolu nag ci pharmacie ba ci ci ci ci hôpital ba ci loolu lépp loolu loolu la mutuelle bi di mën di couvrir mm-hmm. donc pour diir que ne dans tout tout ci gox-goxaan yépp samp nañ fa une mutuelle de santé boo xam ne tey ku nekk mën ngaa jóg nga dem nga dem ca mutuelle ba euh, binduju fa soo ko xamul demal ca mairie ba sa sa mairie su ngeen demee ne ah waaw fu mutuelle de santé bi nekkee ci gox bi ñoom toujours dina am quelqu'un boo xam ne mën na la waaw mën na la orienté mm-hmm. ne la mutuel bi kat ñi seen siège baa nga fële wala mutuel bi kat am nga chance mi ngi ci biir mairie bi mutuelle bi nag bu ngeen koy fekk ci biir mairie bi c'est parce que euh, soo gisee euh, ñu descente ñu ñu des fois ñi gis mairie ci biir mairie bi nañu xam ne amul amul coloration politique maanaam mutuel yi du teguñu ko fi pour diw parti bi la bokk wala diw parti bi la bokk mm-hmm. mutuel yi c'est pour tous les sénégalais donc boo ko fekkee ca mairie ba c'est peut-être mairie ba moo ko abal siège boo xam ne nii pour pour pour mu mën a abri mm-hmm. waaw pour mu mën a liggéey donc yow sa yoon nekku ci parti ba fa nekk sa yoon nekku ca ka fa nekk yow demal rek nga gis mairie ba mutuelle ba nga daal di dem bindu ndaxte ñëpp la pour ñëpp la pour sénégalais yëpp la wax nga ko euh, madame euh, Mara euh, officiel bu ñu fekk ci benn gox moo xam ci mairie wala ci benn siège ñu jàpp ne amul benn kon euh, euh, connotation politique mais tey jii ndax seen sensibilisation jëmle ngeen ko ci boor boobu amaana ma nit dina romb ah jàpp ne fii de bu ma fa demee sama inscription du mun a aboutir ndax kii ak kii ak kii ak kii moo ci moo moo moo ci moo moo koy diriger ndax euh, seen communication mettre ngeen accent ci xelu askan wi ñu bañ bàyyi lu ñu bañ bàyyi xel ci lu ci lu nu mel. Euh, ñu bañ a bàyyi xel ci ci ci li ñu mel euh, cest euh, bëgg nga non en fait c'est pour abonder ci même sens bi nga wax ne. que bu ñu gisee benn mutuelle de santé benn mairie abrité ko. ñu bañ a xalaat ni fii kii dafa nekk appartenance politique ndax tey jii yéen au niveau donc de la couverture maladie universelle yéen ngi ñaax askan wi ñu bàyyi xel ci loolu romb nga fa benn marron beige benn bleu bleu jaune. du du du du du firnde que ne ñi ñi ñi ñi nekk ci formation politique boobu rek la ñu mën a jël en charge. waaw loolu c'est pour éviter des des incompréhensions maanaam ay ay ay ay féete ay xam nañu leen ko waxee ci ay ay péete mm-hmm. ndaxte c'est vrai que le CMU c'est le président de la République son excellence monsieur Macky Sall moo ko indil Sénégalais yi mais bi mu koy indil Sénégalais yi amu ci xàjj ak seen. da ko teg pour que sénégalais yi mën a jot ci malaanu kiiraay ndaxte dafa constaté ne 80 pour cent des sénégalais amuñu malaanu kiiraay donc sénégalais yi la donc c' pour les sénégalais te CMU day dox avec les sénégalais. Mm-hmm. donc y' a pas de distinction de de de ou bien une coloration politique boo xam ne ni diw dafa war a faju ji parce que parti bi la bokk wala kële dafa war a faju parti bi fa jàppal ne man sénégalais laa te dama war a jariñoo ci couverture maladie universelle te damay dem inscrire ci mutuelle inscrire sama njaboot pour bu ma feebaree ma mën a faju ci paj moo xam ne ni paj mu oyof la. waaw dañuy continuer rek euh, ci waxtaan bi couverture maladie universelle wax nga ko âge yëpp la concerné amul distinction mais ñu gis ne am na ñoo xamante ne certainement euh, am nañ ci li nga xamante ne moom moo ji ay favori lañu wala ñoom la ñu gën a jox bopp tey ji lan lan lay ñi nga xamante ne ñoom ñooy am maanaam tout tànk yi nga xamante ne seen âge weesuwul juróomi at ñoom euh, lan mooy seen bénéfice euh, ci li nga xamante ne moom moo di gratuité bi soxal lépp lu jëm ci wàllum couverture maladie universelle. waaw loolu mooy deuxième volet médical ci CMU parce que tey jii euh, suñu yaay yi sunu sœur yi ñi fréquenté hôpitaux yi. gis nañ ne xale yi tout tànk yi comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. xale yi am zéro ba cinq ans. gis nañ ne bu ñu demee hôpital wala ci bu ñu fréquenter les structures sanitaires du ñu fay dara. Mm-hmm. loolu gratuité yi nag yàgg na fi depuis bi ñu defee euh, couverture maladie universelle dafa bokk ci volet bi maanaam xale yi tout temps yi am cinq ans mais aussi les femmes femmes yi nga xam ne nii dañuy jëfandikoo césarienne dañ leen a war a césariser maanaam dañu war a opérer. Euh, donc ak euh, plan Sésame maanaam mag ñi nga xam ne ni am nañ 60 ans et plus ak li ñuy wax dialyse donc loolu lépp ci ay gratuité la tey fii Sénégal. képp koo xam ne nii yittewoo nga ko yelloo nga ko boo demee hôpital am na ci dinañ constaté ne lu ci bëri doo fay dara mais nag Sénégal nañu jàpp ne eh, ñoom ki koy bénéficier du fay dara mais gratuité amul toujours am na kenn koo xam ne ni mooy fay ci ginnaaw te yow gisuloo ko mm-hmm. donc donc loolu dañ koo def gratuit pour population bi pour buñ ciy accéder mu gratuit mais y a toujours quelqu'un qui paye derrière te ki koy fay toujours derrière c'est l'État donc toujours ci paquet CMU bi la bokk donc état bi toujours moom moo teg gratuité yooyu pour que xale yi tout tànk yi mën a dem fréquenter les structures sanitaire donc loolu lépp ci Sénégal je pense que ne xale yi ñu ngi ciy bénéficier wu ci gox-goxaan yépp mag ñi aussi les plus de 60 ans ñu ngi ciy bénéficier wu parce que tey jii il suffit que nga am sa carte d'identité bu wane ne yow ci mag ñi nga bokk am nga plus de 60 ans am na euh, yu bëri yoo xam ne ni doo ko fay ci wàllu ci wàllu feebar maa maanaam euh, consultation yi mi yu bëri donc mag ñi may dégg xam nañ ne euh, boobu ba léegi paj mi gën naa yomb gën a oyof gën a gën a gën a accessible ci mag ñi nga xam ne ni euh, am nañ plus de 60 ans parce que ñun ñii di wax ak yooyu tey ay ndaw lañu mais suba dinañ nekk mag donc programme la boo xam ne ni dañ koy saluer mm-hmm. bu baax a baax ndaxte am na ñoo xam ne ni man dañ may wax am na ñu may interpeller ne ma ah yéen de man de man am na atam sàngam boo xam ne ni sama maam dama ko yóbboon hôpital mais dama cee frais ba sonn mm-hmm. mais depuis ba sëy bi ñëwee ak plan Sésame bi vraiment dépense yu bëri wàññil nañ ma ko ndaxte fu ma daan fay juróom su ma demee du ma fay dara wala dinañ ma ko dinañ ci teggi dara donc vraiment ñi ngi saluer loolu c'est déjà quelque chose de bien parce que mag mag ñi kat ñu jara aar lañ ci réew parce que ñooy sunu pa sunu maam ñooy sunu papa ñooy sunu sunu nijaay ñooy sunu lépp te bu ñu amee wér gu yaram donc ñun dinañ féex sunu poos dina féex donc jàmm dina mën a am donc lu lépp dafay répercuté wu. au finish ci économie euh, sénégalaise bi. Euh, bu ñu waxee euh, tout tànk rek xam naa day am ay ay ay jàngoro yu sew yu leen di farataal di di tëral ñu bëggoon xam rek ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo di tout tànk yi nga xam ne seen at weesuwul juróom tey jii ñoom seen prise en charge yan yan jàngoro lay soxal précisément. waaw xam nga xale comme ni nga ko waxee rek xam nga tout tànk moom ba ngay am ba ngay juddu ba ni ngay amee juróomi at am na des maladies yoo xam ne ni c'est des maladies qui son fréquentes ci xale yi. Mm-hmm. Euh, donc ça va ça dépend ci pathologie bi nga xam ne ni xale bi mi ngi koy présenté mm-hmm. mënuma ko fee lim parce que bëri na tey ji mën naa wax mm-hmm. ay jaare mën naa wax ay vaccination programme élargi xale bi daa war a ñàkku ji donc bëri na feebar yoo xam ne ni mën na dal mën waaw bëri na pathologie yoo xam mën na dal tout temps mais ñun ni ñuy résumé mooy feebar mm-hmm. feebar na nga feebar rek ndaxte boo feebaree da ngay dem ci spécialiste bi maanaam docteur bi donc docteur bi mooy def diagnostic bi ba xam ne yow da jàppale ne boo nekkee tout tànk nga feebar yaa xam pathologie bi la dal yaa ngi déjà ci système de gratuité ci ci ci yi maanaam ci niveau poste de santé niveau centre de santé ba niveau hôpital te loolu nag dama ci profité euh, yee sunu yaay yi nga xam ne ñoo yóbbu xale yi ndaxte dinaay wax toujours ne euh, papa yi moom euh, dañuy jënd dañuy jënd ordonnance rek ak fay tout ce kii rek bu fay jotee ñoom ñooy dañuy taxaw fay pour les taquiner un peu les hommes mais toujours jigéen ñi ñooy toppatoo wér gu yaramu xale yi jigéen bi mooy mooy yóbbu hôpital mooy nekk ak xale bi euh, hospitalisé hôpital moom mooy mooy def yi nga xam ne yépp daal moom moo koy def donc dama leen di xamal ne euh, jigéen ñooñu dama leen di wooye xam ne ñoom xam nañ ne il faut boo xale bi feebaree bul tëb tëb rek daal di dem yóbbu ko hôpital ndax gox bu nekk am na benn structure sanitaire boo fonctionné mm-hmm. maanaam tey yi boo ñëwoon fii ci Liberté ci HLM 2 bul jéggi bul jéggi poste de santé bi nekk HLM de daal di tëb dem hôpital Fann yow demal ci sa poste de santé di nga fa fekk des spécialistes spécialistes yooyu buñ ko xoolee loolu boobaa dangay ngay wu ci gratuité yi léegi fekkee ne ñoom seen seen seen seen expertise dafa romb poste de santé bi dañ lay defal référence. Mhm. bu ñu la defalee référence nga dem centre de santé wala nga dem hôpital donc ci noonu ngay suivre pyramide sanitaire parce ñun dañuy. dañuy mettre en place couverture maladie universelle mais dañ ciy lëkkaloog ministère de la santé te ministère de la santé dafa am de normes yu mu teg maanaam dafa dafa am lu ñuy wax pyramide sanitaire maanaam nit ki euh, accessibilité bi ñoom dañ ci dafay dañ ciy jouer bu baax a baax tey HLM ku feebar HLM te nga war a mën a am mën a fajoo HLM dañ lay tegal li ñuy wax poste de santé ndax poste de santé boobu moom dafay toog ci gox bi pour que ku feebar ci gox bi nga njëkkee ci poste de santé bu dee lu mu mën a faj la daar daar wala loo xam ne mën na ci indi expertise mu def ko bu fekkee ne mënu ko nag mu jàllale la centre de santé wala mu jàllale la kii bi donc ci loolu laa bëggoon leen sensibiliser que ñuy respecter euh, pyramide sanitaire boobu di jaar ci ci seen gox faju fa ka nga xam ne ni sol na blouse am na expérience expertise boo xam ne ni lii bu ci mënul dara dina la bindal ce qu'on appelle une référence nga dem faju ji feneen loolu dama je tenais vraiment pour leeral ko pour ñu xam ne siim yi noonu lay doxee ndaxte bu fekkoon tey fu la boo feebaree fu la neex fajoo ji kon désordre day am te désordre bu amee rek duñu mën a maîtriser programme bi ndax nekk na un programme bu am solo boo xam ne nii depuis boobu ba léegi ak niñ ko structuré dafa laaj ñu contine euh, dafa laaj collaboration ci norme yooyu pour que CMU gën a mën jëm kanam. Mm-hmm. Euh, leeral yi am na leeral yi am na solo lool mu mel ni képp koo xamante ne eh, sa xel eh, amoo ci woon lu la leer mu mel ni eh, madame Mara indi na ci ay explication euh, sànq yaa ngi koy wax euh, couverture maladie universelle amul ay ay ay ay c'est limité wul c'est un peu plus large que niñ ko xamee wax nga ko dinañu bénéficier wu ci lépp lu jëm ci plan Sésame mu concerner ni ñuy duppee les personnes donc de troisième âge mais laata ñuy dem ci personne de troisième âge yi dañuy ñëw rek ci li nga xamante ne moom moo di césarienne euh, ku ne césarienne certainement ñëpp xam nañ ne euh, opération la euh, certainement am na ay coûts yoo xamante ne dafa xaw a élevé tey jii naka la ñuy def ba bénéficier wu ci li nga xamante ne moom moo di lépp lu jëm ci wàllum gratuité césarienne d'autant plus que xam nañ ne du lu yomb ci corps médical bi. waaw mooy comme li ma expliqué rek césarienne bi. Euh, dafa nekk loo xam ne tey c'est gratuit parce que xam tax césarienne tey ji ñu war a euh, glorifier maanaam ñu war a euh, kontaan sant yàlla ci gratuité boobu ba bu njëkk boo daan boo yittewoo boo yitteloo maanaam boo waree buñ la waree defal césarienne kit bi rek déjà ëpp na plus de quatre-vingt-un mille. imaginez la père de père de famille boo xam ne ni peut-être loxoom jotul ginnaawam. Euh, pour que te jabar ji war a def césarienne xam nga kon loolu dina dina xaw a tàng dina xaw a métti moo tax ci loolu nag ñu def ko rendre ko gratuit maanaam doo ci fay dara kit boobu nga daan jëndee quatre-vingt et quelque mille tey jii bu fekkee ne euh, da nga ko war a def kit boobu c'est gratuit. Mm-hmm. maanaam doo ci fay dara ci césarienne bi donc césarienne nag nekkul loo xam ne ni ku jóg def ko docteur bi moom mooy comme ni ma la waxee rek. Mm-hmm. toujours yaa yaa de l'expert l'expert qui est ma médecin bi wala gynécologue bi wala sage-femme bi bu demee ba xool ne ndaw si dañ ko war a césarienne su boobaa jàppal ne césarienne boobu waroo fay kit bi parce que kit bi c'est gratuit donc loolu volet médical bi la rek moo dugg ci gratuité yi. Mm-hmm. parce que nee naa ci sunu njëlbeen waxtaan nee naa la CIM yu ñaari volet essentiel la muy volet kiiraay bi moom la ñuy wax assurance maladie muy vole médical bi moom la ñuy wax les gratuité loolu nag mooy mooy couverture maladie universelle donc loolu mooy les volets ñaari volets yi gën a am importance te askan wi di ko jariñoo muy war a yëgsi ci askan bi askan bi war koo yëg mooy mutuelle de santé yi nga war a bindu ci mutuelle de santé war a dem euh, cotiser trois mille cinq cent wala bu sa doom tout tànk am zéro cinq ans wala war a war du fay dara bénéficier wu ci gratuite bi wala césarienne bi nga may wala wax ni wala sunu papa yi sunu maam yi nga xam ne am na plus de soixante ans ñooñu tamit du ñu fay dara bu ñu demee hôpital ci ci respecté pyramide sanitaire bi euh, wala dialyse tey sax dialyse bokk na ci jalis maanaam ñi nga xam ne dañoo am feebaru roñ feebaru rein ñu war leen si jaliser seen deret di ko changer jalis bi xam nga loolu euh, nekk na euh, vraiment une maladie boo xam ne c'est une maladie très coûteuse maanaam jàngoro bu seeri mbir a ngi noonu boo xam ne nii tey ji ñu bëri ñi ngi koy ñi ngi koy ñu ngi koy jànkuwante di ci fay lu bëree bëri ndaxte dialyse bi rek boo ko bëggee def ni toute une année rek xaalis bu bëri la léegi yàlla dimbali nañu avec le président Macky Sall ba loolu ñu rendre ko gratuit pour les Sénégalais donc centre de dialyse yi nga xam ne nii yépp ni ñaa ngi def di fa fajoo tey yaa euh, am na ouf de soulagement parce que dootoo ci fay dara leneen li nga xam ne ni aussi bëggoon naa profité leeral ko euh, mooy fii au niveau de Dakar ndax ñoo ngi Dakar Dakar boo koy xool aussi mutuel de santé yi bari na fi tey rek mën naa wax ne am nañ quatre-vingt-six mille de santé yoo xam ne mi ngi ci région de Dakar. région de Dakar. waa yoo xam ne ni boo demee gox goxaani foo dem ci dakaar li nga fa wax fekk benn wala ñaar mutuelle te loolu na laaj na population Dakar ñu xam ko mën a dem bindu ji ci mutuelle de santé yi te loolu gis nañ ne eh, mi ngi nekk na fi ñuy jamono jii may wax ak yow nekk na un succès. parce que nit ñi jot yëg nañ information bu te ñi ngi dem ci mutuel yi di bindu bu baax a baax mais ci loolu sax ci cadre couverture maladie universelle sax dañuy dem fu gën a sori loolu parce que tey jii euh, am na ñoo xam ne ni euh, dañuy dañuy dañuy maanaam groupement féminin yi euh, dañuy dañuy dajaloo des fois daal di ñëw ne ah ñun kat Euh, téeméeri femme lañu wala ñaar téeméeri jigéen lañu mais comme li ñuy liggéey euh, ñi ngi liggéey di produire quelque chose danoo bëggoon di ci cof tuuti pour que ñu mën a cotiser ñun ñëpp ñëw def li ñuy wax adhésion de groupe. Mhm. maanaam ñun ñëpp ñu booloo cotiser ñëw gis mutuelle bi mu defal ñu adhéré ñu ci groupe. loolu aussi nekk na jamono jii may wax nekk na commencé naa nekk un succès pour ñun agence bi parce que dañuy encadrer groupe yu bëri yoo xam ne ni ñi ngi ñëw pour adhérer ci mutuelle de santé en terme de groupe def nañ ko ak groupement yi def nañ ko ak avec yi euh, maanaam Sébikotane parce que fi ne nii rek bu ma la citer mutuelle bi nekk Sébikotane euh, recensé na ay avec yu bëri ay mille avec mhm. maanaam euh, kii les acteurs villageois en épargne et crédit mhm. nga xam ne ni dañuy liggéey ci li ñuy liggéey na dañ ciy cof pour ñëw du bindu ci mutuelle bi donc mutuelle Sébikotane dama ci waroon dama ci ko dama ci profité di leen félicité mhm. parce que mutuelle la boo xam ne nii la vraiment euh, euh, c'est expérience réussi la boo xam ne mutuelle de santé bi bi nekk Sébikotane def na ko te loolu euh, grace à notre service régional bi nga xam ne nii ñu ngi def liggéey boo liggéey bu mucc ayib ci wàllu encadrement yoo te du du avec yi rek def nañ ko ak ak ak euh, d' autres groupes. Mm-hmm. ah comme ñi ñuy ñuy liggéey ci wàllu ma ma jën euh, jigéen ñi ñi nga ñuy liggéey ci wàllu sécurité donc bu ma ko doon lim tey jii ci ndakaar rek lim bi tey tey tey mën naa ma fàtte te ndax kuy lim di nga juum mm-hmm. mais ni mu amee expérience ci ci ci cas yooyu. am nañ ko expérience ak d'autres entreprises yoo xam ne ni am nañ ay ay ay ay liggéeykat yoo xam ne ni xëj na duñu bénéficier ci IPM yi duñu bénéficier amuñu prise en charge mais toujours xam nga ne booy liggéey si béréb si euh, boo feebaree da ngay dem xalaat dem ci sa patron tàllal ko ordonnance ne ko ah sëñ bi man ka damaa feebar te ordonnance baa ngi ne lu ci bëri patron yi entreprise yi loolu la ñuy jànkuwante dañuy joxe di joxe joxe ba ba sonn léegi ne bu fekkee ne ñooñu jël nañ leen dajale leen indi cotiser leen ci mutuel de santé bi ku ci feebar dem ca mutuelle ba defe naa ne loolu moom mooy gën a yomb te loolu gis nañ ko ne nekk na un riche jamono yi may toll donc mën naa ci citer lu bëri mën naa ci cité agence des aéroports du Sénégal mën naa ci citer personnel ñuy liggéeyee noo non permanent yu benn ONG bu ñuy wax sama mbay mën naa ci cité ñu bëri ko donc loolu aussi dafa nekk lu baax loo xam ne ni mutuelle yi dinañ ko jël te ñun agence dinañ la encadrer dinañ leen dugal ci mutuelle yi encadré ku nekk ñu xool sa gox ba nga dëkk ñu seet mutuelle ba gën a jege foofu ñu ñu ñu ñu ñu ñu dugal la fa comme ça boo feebaree nga mu yombal mu yomb ci yow loolu pour diir que ne CMU léegi en dehors même ci mutuelle yi 676 mutuelle yi nga xam ne ni couverture maladie universelle teg na teg na ko ci Sénégal ci gox-goxaan yi ñi ngi encadré expérience yooyu ba nga xam ne léegi dem nañ na mën nañ ko tuddee sana ay expérience réussie la mm-hmm. ay expérience réussie la euh, seen plan d'action mu mel ni da ngeen koy yóbbu aussi ba lépp ba yóbbu ko ci fi nga xamante ne moom moo di ci ci ci école yi ah. ñu taxawandi ci fi nga xamante ne moom moo di couverture maladie universelle soxal ñi nga xamante ne moom moo di élèves yi enrôlement ah, doon ngeen ko fi wax sax am na sax ay tournée yu ngeen jot a def ci yenn régions yi certainement pour expliquer nit yi avantages yi nga xamante ne moom la loolu lépp Samb euh, tey jii CMU ci milieu élèves yi comment ça se passe seen adhésion naka ngeen leen di répertorier entre autres. naka lañuy encadré ci niveau au niveau des écoles. voilà donc loolu aussi euh, euh, beneen aspect la. Mhm. Euh, parce que ni ñuy waxee CMU ci li ma la waxoon de façon générale avec adhésion population bi am na aussi benn benn adhésion spécifique. Mhm. yoo xam ne dañ ko tuddee CMU élèves. loolu dafa nekk loo xam ne ni actuellement aussi ñu ngi koy encadré. parce que élèves yi xam nga tout temps que bu feebaree euh, waajuram loxoom jotul ginnaaw wala mu am d'autres charge yoo xam ne nii mën na mën na influencer euh, famille bi wala ci si le plan économique donc tey jii sa doom bu bu fekkee ne mi ngi jàng ci école bi nga cotiser ko mille francs loolu dina ko permettre durant toute l'année scolaire mu am une prise en charge ci mutuelle bi mutuel bi da koy jël en charge te loolu mën naa wax ne tey jii c'est un c'est une réussite à cent pour cent parce que état bi loolu dañ cee lëkkaloog ministère de l'éducation nationale def nañ ci ay tournée yu bëri sensibiliser les IEF sensibiliser les parents d'élèves monter des comités techniques ak parents d'élèves yi ak ak ak inspecteur yi d'établissement yi ba nga xam ne ni tey programme bi mën naa wax na c'est une réussite totale parce que des fois dañuy enrôler ay 1000 élèves ay mille élèves ay mille élèves des fois nga gis benn gox maire bi jël 3000 euh, élèves enrôler leen enrôlement boo mu def euh, ci ci ci mutuelle bi pour les élèves day permettre xale bu ne am sa carnet mutuel maanaam sa carnet carte CMU. Mhm. boo xam ne ni boo feebaree boo demee ca mutuel ba wane ko ñu jox la daal lay defal sa prise en charge nga dem fayoo donc loolu dafa nekk loo xam ne ni euh, dafa baax ci xale bi ci njàngam parce que xale bi su nekkee mi ngi jàng mu terrassé par une maladie alors que au fond maître yi dañuy remarquer ne y a un élève qui tout le temps il est absent. alors que ça peut être un élève brillant. Mm-hmm. donc feebar boobu nekk une contrainte ba tax na xale bi dem ba mu e-, mu répercuté wu ci ay notam ak ci ay raam loolu bu fekkee ne nag xale boobu tey jii am na une prise en charge médicale muy wax seeni élève donc bu feebaree dootu nekk un souci. yaay ji day ñëw jël carte élève parce que cotiser woon na ko au départ dem faj xale bi mu gaaw wér gaaw ñoo continuer njàngam loolu moom aujourd'hui vraiment ñun dañuy osons le dire que mais c'est un succès pour nous parce que xale yi ñi ngi adhéré ñi ngi leen di adhéré de mm-hmm. de waxuma sax parents d'élèves yi mais y a des bonnes volontés yoo xam ne ni tey dañuy jóg adhérer en masse les enfants waaw parce que aussi su fekkee ne CMU c'est pas seulement mais aussi a les bonnes volontés il y a les les les les leaders d'opinion il les maires yoo xam ne nii non pas seulement ñu ngi accompagner mais dañuy accompagner dañuy dañuy jël di enrôler gratuite de façon de façon gratuite cette parce que xam na ne ils sont les premiers concernés parce que boo nekkee maire gox wala nga nekk euh, directeur benn gox donc euh, nit ñi nit ñi di la solliciter da ngay dem nga jël ay nit nga dugal leen ci mutuelle te loolu gis nañ ne CMU il succès total la ci ci ci ci ci programme boobu mhm. te ñu ngi ci continuer di liggéey incha allah pour que bépp gox ci Sénégal élèves yi mën a dugg ci biir mutuelle de santé yi mën a am carte CMU nga xam ne ëllëg ku ci feebar ñu gaaw la faj nga daal di gaaw rejoindre sa école continuer di jàng sa année scolaire mën nekk une année scolaire réussie. Mhm. Euh, une année scolaire réussie dama ne CMU élèves rek euh, xam naa ñu. ñu ñu ñu ñu ñu bu ñu nee élève certainement xel dafay dem ci li nga moo di élèves primaires yi wala élèves de manière générale ndax euh, CMU dem na ba fi nga xamante ne moom moo di secondaire ak universitaire Euh, waaw loolu c'est une question très pertinente euh, c'est mes élèves c'est les élèves du primaire mm -hmm. pour l'instant euh, mais l'université euh, d'abord euh, mën naa la citer l'université virtuelle du Sénégal ñëw nañu gis ñu ñu waxtaan leen daal di leen di eh, dugal ci benn mutuelle boo xam ne ni dañ leen ko def dañu jël mutuelle boobu comme incubateur. Mhm. muy Transvie donc tey jii boo xool adhésion une les étudiants qui sont à l'université virtuelle bi ñu demee di ko lancer sur place il y a plus de 3000 étudiants yoo xam ne ni bokk nañ ci. Mhm. boo xam ne ñun dañu dem waxtaan ak Transvie mu jël ko comme incubateur dugg ñu xale yooyu yëpp mais étudiants yooyu yëpp daal di dugg ci biir mutuelle yi bon réflexion bi ñu ngi fii parce que chaque jour les étudiants viennent nous voir pour dire que dañuy dugg ci biir mutuelle de santé donc nous sommes en réflexion xool parce que dañuy xool na mu gën a adéquaté pour les étudiants parce que les cibles ne sont pas les mm-hmm. parce que xale bi nga xam ne ni primaire la nekk wala xale bi nekk secondaire c'est différent xale bi nekk niveau université mm-hmm. niveau université c'est le level c'est le top level ci ci njàng mi donc loolu laaj na aussi ñu gën ko càmbar gën xool mais premier act bi ñu posé mooy jël Transvi comme incubateur daal ci enrôler les étudiants de l'université virtuelle du Sénégal euh, mbokk auditeurs yi ma fàttali ne boobu ba léegi yéen a ngi lu seen émission SOS santé tey nag ñuy dalal ki nga xamante ne moom moo di madame Mbalia Bara mu nekk chef de bureau chargé des groupes vulnérable à la CMU bu ñu waxee waxee groupe vulnérable rek euh, certainement xel dafay dem ci ñi nga xamante ne seen doole seen loxo jotul seen ginnaaw mais sànq euh, ci sa biir yi wax euh, wax nga ne ciblage bi ñëpp la concerné tey jii bu fekkante ne dañuy def li nga xamante ne moom moo di pourcentage moo xam vulnérable yi ak ñi nga xamante ne dañoo nekk fonction publique ndax pourcentage bi benn la waaw question boobu am na solo trop booy xool Euh, CMU aussi dans comme ni nga ko waxee am na volet bu am importance parce que tey jii euh, bépp euh, maanaam bépp nit boo xam ne ni dangaa am bourse familiale maanaam yaa ngi dégg bourse familiale mm-hmm. ñi nga xam ne ni dañuy recevoir bourse familiale muy transfert monétaire boobu yépp soo koy xool dañoo amoon instruction du président de la république que ñu dugal leen ci mutuelle de santé yi di leen cotiser gratuitement mhm. maanaam ñoom boo koy xool ñi ngi ci biir mutuelle de santé yi mais gratuitement dañu gratuitement c'est l'état mooy jël en charge moo leen di jëlal loolu lépp en charge donc képp koo xam ne ni am nga bourse familiale di fayeeku bourse familiale tey yaa ngi ci biir mutuel de santé de façon très gratuite nañ ci nag c'est un objectif à mais ñi ngi ci doon liggéey enrôlé nañ plus de 2 millions de bus plus de 2 millions de chiffres exacts bi yoruma ko en tête mais on ñu bëri ñoo xam ne ni ñi ngi ci biir mutuelle de santé plus de 2 millions bénéficiaires ñi ngi ci biir mutuelle de santé yoo xam ne leen ñu ngi ci programme national de bourse de sécurité familiale waaye du ci te li gën a neex ci programme boobu ci enrôlement booy dañ leen a jël ak seen njaboot maanaam tey yow mën nga ñëw di fayeeku euh, bourse familiale boobu léegi ñun buñ lay jël ci CMU duñ la jël yow rek dañ lay jël yow ak ci sa ci sa ci ak sa njaboot pour dire que ne CMU aussi dafay jël en charge ñi nga xam ne ni seen loxo jotul seen ginnaaw ndax man ci direct division boobu laa nekk te ñu ngi ci liggéey liggéey bu am solo boo xam ne ni eh, dama ciy profité di nuyu suñu sama chef de division eh, madame Seck Marie Rose boo xam ne ni moom mooy chef de division bi te ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax ci loolu donc mais yemuñu foofu rek mais dañuy jël aussi ñi nga xam ne ni ay ay waay laago lañu maanaam ñi nga xam ne ni dañuy dund ak handicap ñooñu aussi président dañoo am euh, dañoo am instruction que képp koo xam ne ni am nga lu ñuy wax carte d'égalité de chance donc ñu dugal la ci biir mutuelle yi te je pense que ñu ngi ci ñu ngi ci avancé trop bu baax a baax am na ñoo xam ne ñu ngi am carte d'égalité des chances ñu ngi ci biir mutuelle de santé pour dire que ne couverture maladie universelle Euh, vraiment mi ngi traité non seulement malaanu kiiraayu sénégalais mais ñi ngi traité aussi les cas spécifiques yi nga xam ne ni mën na présenté wu dafa ci programme bi moo xam ay ay seemi élèves la mm-hmm. moo xam l'encadrement des groupes organisés euh, moo xam ñi nga xam ne ni euh, seen loxo jotut seen ginnaaw donc loolu lépp c'est des cibles spécifiques et des expériences réussies yoo xam ne ni ay fenêtre la lu agence bi di ubbi di nga xam ne ni dañ koy jël en charge mm-hmm. au niveau de l'agence pour que au finish ñoo ñëpp mën a jot ci paj moo oyof boo xam ne nii duñ ci am benn tolof tolof te dinañ mën a faju ci sutura te kenn du leen xamal mm-hmm. Euh, madame madame madame Maria euh, Sénégal euh, du Dakar euh, poste de santé yi nekk dakaar lim nga ko euh, même bu fekkente ne amoo chiffre exact yi certainement dakaar moom mooy ëppale ñi nga xamante ni moom moo di euh, ci yenn dëkk yu ñu wër tey jii rek ñu bëggoon xam ndax au niveau des autres régions ndax adhésion bi facile na. ak mettre ngeen l'accent euh, comme euh, cela se passe à Dakar ci ci ñaari yooyu wala concept bi benn la. waaw sànq damay damay ñëw ci benn point donc chiffre exact cest xam nga boo koy xool tey ji mm-hmm. euh, mën na naa la joxal pourcentage yu par cible parce que mais pourcentage bu mag bi nga xam ne ni cible yépp ñu ngi ci biir mm-hmm. agence bi def na ko ci jéego. en termes de de de de, de réussite. donc actuellement mën naa wax ne on est à 53 pour cent de taux de couverture. boo xam ne ni waa au niveau national boo xam ne ni euh, am na solo lool. ci ñoo xam ne ni ñu ngi dem ñu ngi door en deux mille euh, en deux mille quinze te deux mille quinze bi ñu dooree euh, c'était la mise en place des mutuel maanaam samp mutuelles yi mm-hmm. processus la. def nañ ko commencé woon nañ ko deux mille 2016 nga continuer di samp mutuelle yi pour te dire que c'est 2017 2018 que lañ commencé effectivement di dugg ci liggéey bi et aujourd'hui nous sommes en 2021 on a un taux de couverture de 53 pour cent te bëgg nañu continuer loolu plus loin ba atteindre un taux de quinze pour cent au moins sénégalais bu nekk sur les 16 millions de sénégalais que nous sommes que mu ñi nga xam ne ñëpp amuñu amuñu prise en charge amuñu malaanu kiraay ñu réussir ak ces la là puissent d'abord comprendre maanaam jot information CMU parce xëj na boole woo ko ci sa question yi mais am na solo mhm. l'information parce que tey jii bu information bi jàllul duñu mën a atteindre lu nu bëgg donc ci loolu sax ñun dañ ko dañ koo xam gëm ko ba nga xam ne ni dañuy développer des stratégies de communication yoo xam ne dinañ si ñëw xam naa ne pour ma mën la koo wax ne la yemuñu foofu rek ñi ngi conti gën a continuer 53 pour cent yi d'ailleurs je dirais que ne réussite la mais aussi c'est pas suffisant donc nous voulons plus que ça mhm. nous atteindre benn taux ba soixante pour cent boo xam ne ni euh, moom la ñu bëgg moo nekk suñu objectif. Mm. pour que ñu mën ne Sénégalais tey jot nañ ci couverture maladie universelle. Mm-hmm. ñu ñu ñu continuer foofu rek ñëw ci seen stratégie de communication. Mm. Sankara xam naa ne certainement euh, waxtaan wi moo la jàppoon ba bàyyiwoo ci xel. Mm. mais maa ngi la leen doon wax euh, ndax sensibilisation bi yegg na fi nga xamante ne foofu ngeen koy xaaree tey jii yéen ñi nga xamante ne nekk ci. Eh, et couverture euh, maladie universelle lan mooy seen stratégie de de communication da ngeen koy def avec les musiciens ñi jouer théâtre euh, comment ça se passe ba euh, képp ku nekk ginnaaw Sénégal fongo mi fongo fongole mi mu xam ne couverture maladie universelle existe na tey tamit dafa ñëw ngir mën a jàppale ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw Euh, waaw xam nga euh, stratégie de communication yi moom euh, comme ni ma la ko waxee rek programme boo mënti teg ci réew mi te boolewoo ci communication ah du ma ne du dox de waaye dina dina dina dina dina tagatémbe dina am ay soo ay sooxet moo tax toujours ñun dañoo gëm ne il faut toujours communiquer beaucoup communiquer encore communiquer et je pense que ne ñoo ngi ci ñoo ngi ci ci logique ñoo ngi ci logique boobu ndaxte euh, même suñu directeur dafa comprendre ne loolu am na solo ba mu créer benn division de marketing social mm-hmm. euh, division de marketing social boobu li li li rôlam toujours mooy euh, ji ma développer développer des de communication